ba tey ci seen scandale di jour ñu dem déglu Omar li mu wax ci euh, maire bu Kër Massar. waa gars yi salaamaaleykum dañuy ñëw vidéo boo xam ne dama ko gis mu nekk lu choquant lu impressionnant loo xam ne dañ ko doon wax askan wi wax ko sénégalais yi naan dañu xeex lan rupture jëlee fii. ñiit ñoo xam ne nekk ay maire lañ wala ay député wala ay ministre ñu leen di gis ñuy génne alalu réew mi ou bien ay liasse di ko baatre di ko jox nit ñi ba bërëm Souleye Diop sax tête vide bi génn na naan dootul leen pare ne kenn ci dëkk bi dootul leen pare ne lamb sport moo xam ne mu nekk culture ak cosaanu Sénégal président Bassirou Diomaye Faye yow yaa ne rupture jubal jubbanti jubal yow yaa ko wax yow yaa ko woote yow ak le premier ministre Ousmane Sonko tey le maire Bilal jaata maireu Kër Massar Sud ñu gis que jour Korité mu génnee xaalis bu bari di ko distribue ay nit lu tax loolu doo leen ci artu jubbal bi ngeen di wax bi lu tax maireu Kër Massar Sud Bilal Diatta doo leen ci wax ngeen di yónnee ay courrier mooy agent de l'État yi ñëpp di leen naan gars yi nañu jubbal nañu jubal légui lutax Bilal jata li vidéo bi dama bëgg ngeen ko bu baax ngeen xam Sénégal rupture amu fa rupture arrivistes au pouvoir te c'est très dommage seetaan len li sama maire maire Kër Massar Sud dimbali loo def a gën loo deful ne ko man la aji ne ko man la aji xaritu Aida e kooku ne ko tubaarkàlla du du fois loo joxe yaa ko moom déggal li e dama lay filmé waay waaye sama doom day dama koy filmé waay léegi lii ñoo ko gisandoo bu dee rupture bu ñu doon wax léegi lan ci rupture Bassirou Diomaye Faye fonds commun yi yi nga xamné té permettre né yow nga am ay 30 millions Ousmane Sonko am ay 30 millions té say collègues say moroom yu nekk impôt et domaine ba ñu ngi comment continuer di koy percevoir lolu moy rupture Bilal Diatta da ngeen ko wara wo woo laaj ko xaalis bu muy distribuer fan la ko jëlé donc premier cas yow président Bassirou Diomaye Faye li nga doon laaj indi nañ la ko té si yalla bok da ngeen xool lan ngeen ci taxaw bu dé jubbal ngeen wax jubbanti donc moo ngi noonu président basir Diomaye Faye ñu ngi lay déglu di la xaar. dina dina leeral yow bu bu guy ma Omzo bu la daara métti président dafa woote jubal jub jubbanti jub jubal jubanti jub jubal jubbanti jub jubal jubbanti jub jubal jubbanti dama leen koy répéter nii pour ngeen dégg ko de te chaque jour naa leen ko wax saa yu ma ñëwee scandale du jour danaa leen fàttali jub jubal jubbanti. ndax woy bu bees la da ñëpp ko war a mokkal caawaane sax dañ ko ci war a def jub jubal jubbanti jub jubal jubbanti jub jubal jubbanti président wa ko woote hmm, hmm, hmm, moo ko woote lépp yow yow yow yow yow Omar bu la taara métti dëgg la da ngay opposé wu nii te opposant day gis yoo xamante ne ñoom duñ ko gis merci pour interpelle bi merci pour fàttali bi merci pour dénonciation bi nga def nii Omar les nouveaux opposants mais ñun dinañ lijjanti lépp yow bul wax dara pour ñun ñii ñun ñu nekk au pouvoir pour la ñuy lijjanti boobu set jub jubal jubbanti jub jubal jubbanti fexe leen ba mën challenge bi nag bugguma benn effet secondaire prési moo ko wax jub jubal jubbanti te lépp dina set jënd nañ si orosafil jënd nañ seen madaar weexal lépp day set lu leer laa leen di wax lu leer nañ nañ nañ nañ laa leen tegal donc c'est le jub jubal jubbanti qui se passe dans ce pays et qui doit se passer dans ce pays d'ici 2035 c'est lu jub jubal jubal jubbanti amul leneen jub jubal jubbanti <laughs> fan yëpp maa ngi jàng ci maa ngi jàng slogan bi fan yëpp fan yëpp yëpp yëpp guddi gi mën daal ma tëdd di di di woyantu jub jubal jubbante jub jubal jubbante jub jubal ah waaw ah, a mën mën ak Sonko ak Jomaay jub jubal jubbanti barki yonent bi yàlla baax na yàlla bëri na sutura lii kenn mënoon wax lépp. ma ne Omar opposition miite na mais garaawul lépp de ñun dinañ gérer lépp Omar waaw mën nañu waa Paris.